grand serigne grand serigne cër la bu lebu yu jël jox seen maam ay grand serigne lañ mais seen maam miñ ko jox lañu bañ ko wax ne kokki la joge kokki la joge kokki isa gey man jaraaf maa ko wax maamu kan maamu ñoom ablaye matar ay papa jaañ yi loolu la ñuy bañ ko ko wax lu tax koy bañ lan lu am si kokki xam kon problem ñaar problème boobu mooy seen problème loolu mooy suñu problème ci loolu xeex nañ ma si ba jël ba jël suma groupe doom si histoire mbaaw bi ba xale bi ñu tëj ko gendarmerie mbaaw ba ñu jël ko mu dee mu mu mu mu mu mu piqué crise mu jëj hôpital sa doom waaw xale la seen morom la wala yéen ko mag tuuti wala yooyu dee na dafa dee comme ça ndax xale la boo xamante ne mhm. suma loxo la woon mhm. ba mu kër gi sax ba mu kër gi ak même facture damay palaat mi rek. loolu yàgg na. loolu yàggul ça doit ça fait juste deux ans. juste deux ans fan la nekkoon nga wax ba problème moto yi amoon fa. mbaaw histoire bi amoon mbaaw te dañ ma tooñ. Mhm. mais foofu aussi waa Walfadjri ñoo ñoo jël seen kii parce que nit ku ñuy sànni nga joxe ginnaaw même yonte yàlla Yuusufa histoire si poñe bi nga xamante ne moom la ko guni poñe si guni yee jigéen ñi. Mhm. ka. alquran am na lu mu si wax ku joxe ginnaaw ñuy sànni xeer jël ay xeer yu ñu tooke yóbbu ko si sëriñ ñu di ko sànnin too pour mu dal ma man pour que ma dem bar ah loola pour ma dem bar sax sax dama ne xam naa ne ablaay yëgu ko waaye ñoom ma amaloon problème fii si wakaam ñoo ko doon sante benn soxna su sa euh, euh, naka mu sax si comico benn féticheur bu nekkoon fii si comico waaye dem na sil xawaante benn féticheur pour yow dégguloo dañu dem ut ay mbër jël ay xeer tooke ko pour mu ñu sànni ma ko loolu moo waroon sànni mbaaw yi nit ñi xamuñu wax nañ si lu ne maanaam maanaam maanaam bu ñu bu ñu dégloo sa doom na la doon def mbaaw man maa demoon ci réunion mbaaw problème mu mbaaw état mbaaw lañu bëggoon jël jox ko waa Pikine. waa yow loola lañ doon arrangé état bi sax bàyyi woon na. Mhm. waaye lii wóor mooy ñun dañ bëggoon dem pour defal mbaaw. pour nga ànd sa doom parce que sama yaay nag mbaaw la dëkk nag baayam ma doon borom mbaaw. man mbaaw laa bokk de léegi yow da demoon ànd ak sa doom. dama jël ay waa dëkk bi. Mhm. ay car laa jël. Mhm. ak ay moto lépp. te te pour ñu dem ñu toog. ci jàmm xam ne seeta bugguma kan bii dëkk mbaaw mhm. te waa suur sekkat di maamam ñëw na pour wan leen ne moo yéen a bokk ñu waxtaan léegi lu fa xew dama ak sekkat ñuy sànni moom Ablaye mu jël micro bi taxaw naan waaw moo papa jaay ñu ànda nangam nangam ndekete yoo si lii ma dégg nu mu leen naxe dañu jël benn benn benn mhm. jox ko téléphone si ñoom. maanaam dañuy dem sa réunion ba ne way jaraaf yi sundooy ne du ñëw. man ma bañ a ñëw man fa ñuy réunion sax sama maam a. tiitale léegi xeex am fa. xaaral allo. jaraaf yi sundooy ma ne waaw. waaw nekkee def fekk du man maanaam Modou Fall la par exemple. ok mu ne naka def mbokk comme man damay wax ak ñëpp mbokk ñu mbokk naka def ñu waaw. waa histoire ñun waa mbaaw dañuy def benn réunion fii ñu bëggoon nga ñëw su ko defee kooku mooy wax ne ñëwuma mu mel ni man jaraaf Youssou Ndoye maa fa nekk. loolu lañ leen naxee. ma ñëw ni sànni piège la. Mhm. mais piège bi loolu dafa dafa ñaaw sax parce que man ma bëgg sax kuy sànni nit waaye comme noonu la demee yàlla tam am na nu ma farale rek yàlla reyalul kenn ay noonam. ban fa jógee féticheur beeg ñaari nit dee nañ si fii si Wakam moo waral ba ma demee si jumaa ji réunion ma ne leen attention man dem naa si armée yi nii rek ah dama demoon nii rek pour xool dew ma pour affaire yërmande de dama ñëwoon pour xool site bi xam nga site maanaam nooy nu ñuy yëkkatee néew bi fëgg ko si armée yi. chute bi waaw da nga terap si biir. néew bu def lu bon damay ñëw seetaan ko mat. ku def lu bon waaw léegi léegi yow sa sa doom lu ko fa gaañ. daara gaañu ko fa. Mhm. moto ba mu yoroon. Mhm. ñoom dañ ma oo pour ma bàyyi fi moto yi te dem. waaw ma dem ñibbi ñoom chef de brigade ba téye sa moto yi. Mhm. bii ma toogee ba ñëw fekk moom benn problème beneen problème bu ma doon réglé. ma réglé ko ba pare coow am ci si cet li sax parce que man arrangé problème diw arrangé problème bi rek jarul coow. ma arrangé ko sonn si dem si ñëw mais ndekete ñoom ñu ngi may yeeru pour pour affaire affaire boobu si affaire mbaaw bi nag si lañ profité le chef de brigade là profité aussi ak procureur ba yoroon affaire Pikine. Mhm. moo ñoom ñoo ko ñoo ñoo ñoo ñoo joué ce bi téye xale yi. ñeenti xale xaw ma téye sa doom sama doom bokkaale si biir parce que moto mu fa. Mhm. si noonu si noonu la ñu affaire boobu. man. moom lu ko fa dal si ngoon gi xale bi diabétique la woon. Mhm. lekkul. bon xaw ma nu mu demee parce que fekk ma ba. mu ñu ma ne ma xale bi dafa am mhm. jël sama grand bi médecin bi Baye Moussa Diagne. Mhm. Euh, colonel la si armée euh, médecin la actuel ma mu dem seetali ma ko ba mu demee mu def ay kéem def ordonnance gars yi defar defar. après ñu bàyyiwaat ko fa bu ñu amoon xel dañuy hospitaliser xale bi si guddi gi. Mm-hmm. boobu yow demoo. demoo pour bañ coow parce que dama weex jë mm-hmm. ñu jël xale bi hospitaliser ko si guddi gi moo doon yoon. ani médecin bi nga yebal. mais ñu bàyyi ko fa da médecin bi mënu si dara parce que loo xamante ne dañ ne loo ko téye loo si man mm-hmm. la lendemain la ñu jël xale bi gis ne affaire bi xale bi dugg na dans le coma ñu yóbbu ko. xale bu tuuti buy ko am vingt mhm. nga yóbbu ko mhm. ñii bañ ne duñ ko jël nga jëlaat ko yóbbu ko yóbbu si hôpitaux yi ba mujjee fii si Grand Yoff hôpitalu Grand Yoff mhm. si loolu si la jël xale bi hospitalisé ko médecin bi jël ko ñu jëlaat xale bi teg ko teg ko un gendarme

déedéet yàlla moo ëpp doole ñëpp. moo tax bi yàlla ma ko mayoon ñi ñi la doon complot ñaar ñooñu bi ñuy bi ñuy deewee nga dem xool leen nga dem xool. chute ma dem xool ni ñu leen dugalee si pax yi. ani féticheur bi. féticheur ba dee dem na mu nga fa.